الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا خيو يا قيوم نو ديك ak تي نجارين نجارين njariñu ناجو ناجو دي di loolu دي توغو di nga xam ne euh, doom yi dañu lay mel garab la bu sax fii senegal euh, lu bëri lu muy jógee Fuuta wala ay waalo yooyu naajo jigéen ñi dañ koy faral di togg suñuy togg ceeb ak yu mel noonu boo demee tam ci réewu naar ñoom fonk nañ ko di ko def ci plat yu bëree bëri bëri mais bu dee Sénégal fii moom ceeb daal laay gën a gis ñu koy ñu koy def mais tey li ñëw. pour waxtaanee ko doom bi la doomu naajo bi euh, mu bëri njariñ trop baax ci góor baax ci jigéen euh, nga xam ne moom bokk na ci yi nga xam ne day faj euh, faj feebar yu bëree bëri baax na ci nit koo xam ne ay nga xam articulation bi dafay metti wala comme sedd bi dugg si nii su ko nit dee consommé lu bëri rek baax na ci feebaru yax yi ay manqué ay calcium ak manqué ay magnésium ak xeetu feebar yooyu eh, wala problème daal eh, ay rhumatisme ak yooyu daal ba ci arthrite rek bu ki ko amee di jël graine doomu kii naajo du ko faral jëfandikoo da koy da koy daal di faj moom wér euh, baax na aussi ci euh, loolu ñuy wax prostate waaw loolu ñuy wax prostate euh, lu tubaab naan ko hypertrophie bénigne de prostate moom doomu naajo da ci gaaw lool bu fekkee nit ki da ko am ba ba nga xam ne prostate dafa rëy dafay dafay rajeunir prostate euh, baax na aussi ci saan koy jëfandikoo su fekkee dangaa nga am ay saan daf koy dindi même su fekkee da ay ay ple plewu kii ay góomu mbaq moom da koy dindi moom doomu naajo boo amee ay saan daf koy dindi ndax saan bu yàggee mën na mën na sécréter kii bi euh, mbaq bi ba nga xam ne day am ay góoma ak yu mel noonu moo tax ñaare sax sànni ko am dañuy dem ba am mauvaise haleine bu ko defee lii def ci baax moom doomu naajo def ci baax waaw nga xam ne même garab bi sax ñuy wax super garab la boo xam ne euh, bokk na si li ko liggéey doomu naajo baax na si ñu am prostate baax na si ñu am hémorroïde baax na si ñuy seere baax na moom si ñi nga xam ne am ay problème yu yax moom super bi naajo doomu naajo yi participé participé na ci composition bi moo ngi ne même diabétique gi dañ leen recommandé ñu jël doomu naajo bu defee dafay réguler seen jabet mën na sax dem ba soulager leen ba nga xam ne dootu leen daaneel incha allah euh, baax na aussi ci jigéen ñi nga xam ne dañoo dem ba war a mën a ménopause daf koy daf koy daf koy arriéral day tax doo gaaw a ménopause su fekkee yaa ngi koy jëfandikoo doo gaaw a ménopause moom doomu naajo su ko nit ki dee jëfandikoo itam euh, dafa dana waral ci moom bu góor la daf koy jox mànn bu bëree bëri daf koy jox qualité bu baax en même temps aussi daf koy daf koy euh, may doole ci wàllu sëy waaw doomu naajo su ko nit ki dee jëfandikoo daf koy may doole ci wàllu sëy Euh, noonu la baaxe tam ci hémorroïde bu bu fekkee ne nit yaa ngi koy boole ak euh, daakaande werek di ko jëfandikoo daf koy dafay faj hémorroïde ak euh, feebaru biir yu bëri da koy faj ndax fi ne boo xoolee loolu ñuy wax pasti daakaande dañ koy defaree daakaande moo tax daakaande bi rek bëri na euh, ci wàllu médecine ba ci messine bi nga xam ne médecine conventionnelle bi ñoom dañ koy faral di jëfandikoo euh, baax na aussi moom doomu naajo ci jigéen boo xam ne mënul am doom walla fertilul day tax dafay fertile bu baax a baax a baax a baax képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo euh, dafay waral ci yow euh, bu fekkee da nga may saan mu koy dindi su fekkee ne euh, sa ndox muy góor nga am sperme bu woyof daf koy dolli bu dee jigéen la tam day may say nen doole bu dee yaa ngi koy jëlew jigéen bi dana waral doo gaaw a ménopause Euh, bu dee jigéen boo xam ne sax amul du am bànneex ci sëy baax na ci euh, yooyu yëpp daf ko boole dafa boole yooyu yëpp ba tax ñuy faj ñu si bari dañ koy participer seen garab su mel ni ñun lu gën a bari dañ koy faral di boole ci yenn garab yi nga xam dañ koy liggéey moom doomu naajo bi jigéen euh, lañ ko daal képp koo xam ne am na prostate mu mu di ko mu di ko jëfandikoo bu ko dee jëfandikoo rek régulièrement rek prostate dina deñ ku am ay saan daf koy dindi ku am mauvaise haleine daf koy dindi ba pare laxatif la su ko nit ki day jël day dindi seere ba pare itam day dëgëral ay yax day tax sa yax dëgër seddaay bi nga xam ne su commencé duggu borom romantisme yeeg yooyu dañ koy faral di jàmbat dañuy bëri lu ñuy lekk doomu naajo kon loolu lañ leen loon tey ba yeneen jotaay incha allah ñu leen yeneen njariñ bu soobee yàlla di leen tàggu di leen ñaanal di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu.